asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateurs yi ñu suivi ci Equivox TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci yéen fu ci waaye mën a nekk rek ñu ngi lay bëggee tey nag defe naa ne bu ngeen gisee ki ñu toogal defe naa ci làmb kenn du ko présenté di doomu Grand Yoff ñu koy wax mobile numéro 2 nekk écrit tamit Grand Yoff tey nag ñu fas yéene wax ak moom parce que làmb ah bari na fi mu nekk nii coow jàppal bàyyi ji ubbee nag duna ubbi loolu nag bëgg nañ ci yéen dégg bëgg nañ ci dé dégg moom xalaatam parce que mbër la mi nga xam ne mu engagé la macha allah te itam gis nañ ne am na combat mook buur siin bu bawal mais yaakaar naa ne daal te it li ci des li ci neex mooy ko ñam nag la ñu nekk ndax ku ne xam ne ne Equivox fi ñu nekk nii si ka faar defe naa mook aslem Grand Yoff ak Grand Yoff lépp benn secteur bi la mbër maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Babacar ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Equivox xam nga di nuyu Sénégal yëpp di nuyu nit lamb yëpp di nuyu ah. di nuyu képp ku yëngu ci lamb rek di nuyu monde entier daal pour mu gën a yomb. am na solo mu mel ni man ba nga jógee États-Unis dem nga fi États-Unis ñëw bi nga ñëwaatee boobu ba tey ndax danga nga fi delluwaat États-Unis yow noo ko dundee ak noo ko gisee en tant que mbër mais en tant que sénégalais. waaw comme ni ko ñëpp dundee rek comme ni ko ñëpp dundee rek xam nga nag Sénégal wax fi day xaw a métti parce yi dañuy bëgg boo waxee nga satisfaire ñëpp te fii moom kenn mënul wax lu satisfaire ñëpp maanaam booy wax waxal liggéey dund waxal li nga xam ne moom nga gëm coronavirus bi ñu ngi koy dund comme ni ko nit ñi dundee mais tamit charge yi ci teg doomu aadama yi métti na trop trop trop trop faa ñu bàyyi xel ñëpp ndax réew mi ñëpp yamuñu ndax bu ñëpp yemoon rek am ñu gedd seen cër kon nag ñëpp mënuñoo yem charge yi ñu leen teg feebar la buñ ñu proposé nag mi ngi ci dëkk bi proposé ñu li koy moytu proposé ñu liñ mën a def ba mucc gars yi ñu ngi ci condition yooyu noonu di ko daw. di def maanaam di def li nga xamante ne ni moom la ñu njiit yi proposé nañu ku ko def mun ngaa mucc si corona beeg yooyu mais tamit looy digal nit ñi ñu la gisee nga jiitu ci rek après day xaw a kii quoi. da ngaa jàpp ne kon ñi joxe ndigal maanaam ñoom jëfewuñu ndigal li ñoom ñu koy digle. waaw parce que boo xoolee xam tey fii dëkk bi kenn bëggul feebar kenn bëggul dee te buñ ne feebar buy rey la ñun ñuy dégg travers niveau Europe bi li mu fa def. buñ ñu proposé ñu ne mu ngi suñu dëkk luñ mën a def pour moytu ko dañ koy def mais après day am loo xamante ne gis nga nit ñi dañuy bëgg gis loo xam ne day am suivi maanaam loo xam ne day am suivi nga nit ñi lii moo koy moytu nañ def lii ak lii nit ñi nekk ci loolu gis si ñëpp réew ñu xool nan lañ koy organiser mais maanaam côté bi may waxee naan ñëpp mënuñoo yem charge yi mooy maanaam problème mu couvre-feu yi problème yeneen détails yu sew yi day métti day métti Sénégal nekkul benn pays riche boo xamante ni bu la neexee nga xëy tëj nit ñi benn 12 jours wala benn 20 jours après gars yi nekk ci parce que fii bëriwul kër yi ngay dugg fekk ñu samp saako ceeb. fii ci waaw. kon maanaam tëj bi ñu tëj nit ñi couvre-feu su ma la déggee yow àndoo ci. non man moom am personne am personne ma ci li tax d'accorduma ci bu ñu defoon nag li ñu war a def lépp d'accord naa ñu tëj nit ñi 10 ans bu leen neexee mais ci kaw ñi ko war a mate mate ko parce que tey réew mi bul fàtt ne am na si ñoo xam ne seen dépasse suba tey lañ koy daw bëri na si ñoo xamante ne nii xaaj bi ay safaru taxi lañ yoo xamante ni nii amuñu embossement Babacar mooy embosement bi mooy dem liggéeyi suba gi ba vingt et une wàcc jox la nga gontu ba six heures du matin jëm cee am loo dépassoo suba six heures du matin nga gaareel ko otoom buntu këram remplir ko gasoilam jox ko benn set mille wala dara li ci des nga yóbbu sa kër jox sa njaboot mais tey est-ce ñooñu ñoon dañu leen boole si ñu ndàmpaay. est-ce que tey dégg nga ñu ne ndàmpaay taximaan yi siiru wala ñu doon liggéey guddi am na si ñoo xamante ne nii liggéey bi ñuy liggéey métti na si ñoom boo xamante ne nii bu ñu amul luñ gënal lu leen gënal ñu bàyyi ko wuti leneen parce que tey ñu ngi nekk ay service si restaurant di ci dundal seen i waajur wala dara te pourtant bu ñu xëy di liggéey seen koñ yi ñu ngi ciy dégg baat yu ñaaw yu ne ay caaga nga ay lii nga lu ne lañ ciy dégg mais teewul loolu lañ mën a gisagum pour mën see jàpp di ci dundal seen waajur tey nga ñëw def couvre fa vingt une heure ñi daan jëndi reer jëndiwuñu reer fañ daan liggéeyee ñu ne leen comme nit ñi daan jënd si jënd si wuñ léegi dañuy wàññi éléments yi ñu ànd wàññi leen imaginer kooku tey nekk locataire ci li doon am foofu noonu ci la doon fay ay location dese ci benn 15000 débrouillé si saaku ceebam seen waa kër di luñ dépassoo ñooñu fan tey ku mel ne artistes yi woykat yi dañoo génn woote benn bur yi dañuy marché dañuy lii état bi woo leen ndàmp leen parce que dañ naan artistes yi ay nit yi am visite danañ seen làmmiñ yegg na fu làmmiñ ñeneen ñi yeggul tey ñu ne waa waa làmb bu ñu waxee génnee nañ 47 millions jox leen. 27 millions. waaw ah, 27 de laa dégg. waaw parce que dinañ bi ñu ko séddalee yaakaar naa la positionné woon noonu kii ñee jël 20 millions yi jox promoteur yi 27 millions yi. léegi léegi tey ñu ne jox nañ waa làmb 47 millions jox nañ artistes yi presque 5 milliards et quelque léegi kon na réew mi def couvre fa mais est tamit bi ñu génnee toog ci bi dañoo waroon wax seen bopp kese. bàyyi ñi nga xam ne ñooy seen soppe ba tax teg leen ci niveau bi ñu nekk ba réew mi tey naw leen ba buñ taxawee ñu dékk leen mi ko dañuy wax. ndax artiste buy tëgg de moom nit ñaay dagg tike ñëw wàll si la. seen lii dafa tëjati pourtant ñoom ñooy làmmiñu réew mi ñoom ñooy waykat yi ñoom ñooy nekk di woy mbëggeel di woy waajur di jàpp ne loolu ñuy woy du pour seen bopp kon bu réew mi tollee fii nii ñoom bu ñu waxalee sénégalais yi génnuñu si ñoom ñi ngi ci biir sénégalais yi. comme daal da nga bëggoon bi ñuy wax ñu bañ a wax artiste mais ñu waxal ah maanaam Sénégal gi yëpp xëy na tey bu ñu waxuloon Sénégalais yëpp lancer yenn message yi ñuy liggéey ñii taximan di siiru ñiy liggéey restaurant ñiy def lii ñiy def lii ñi daan garder guddi gi di ci am seen benn weer soixante mille fañ daan garder liggéey amatu fi ñu ne leen dem toog a mais bi ñu taxawee seen bopp lañ wax état bi fajal leen seen kii léegi ne leen couvre-feu ban artiste nga gis mu génn taxaw télé bi ne couvre-feu bi léegi lii kenn mënul wax parce jot nga ba pare da dem toog léegi ñi nga xamante ne nii ñoom amuñu possibilité lii buñ soxlaa Babacar ñëw wax li ñu war a wax buñ soxlaa keneen ñëw wax lu ñu wax lu ñooñu ku leen waxal dañuy dem bokk ci tëdd bi te yoruñu luñ dundee. jaaykatu fonde beeg. waaw kii jaay cere guddeeg. waaw maire bi doon maire bi doon jël 3000 am tey ci ñaari lekkati cereem dem jéem koo jaay am ci benn 4000 wala benn 5000 ku koy waxal kuy waxal keneen ak keneen. dawalkatu sareet bi. dawalkatu sareet bi ku koy waxal kan mooy waxal ñeneen ak ñeneen maanaam buñ ko doon lim duñ fi jógee buñ ko doon lim duñ fi jóg est-ce que du ñoom dañoo am Youssou Ndour parce que ku ne xam na ne l'international boobu Youssou Ndour defe naa ne moom ministre la conseil la ci président de la république est-ce que du moom moom tamit moo dem waxal ñi nga xam ne ni ñoom ñooy njabootam nga xam ne ñoom ñooy njaboot artiste gi. mais Youssou Ndour mooy li ma wax rek ñoom ñëpp est-ce tamit état loolu la war a doxee ñee dañu am Youssou Ndour mu lay politigal kon bu Youssou Ndour waxee danga war a jàpp ci njabootam mais Youssou Ndour buy wax sax Sénégal la war a li mu doon safeewul fenn fudul Sénégal. bu ñuy wax artiste international Sénégal la ko tax ñu ko wax Sénégal la dëkk def ci beneen niveau lu kenn deful ñu tuddee ko international mais bu demee ci niveau boobu noonu bu demee ci dëkk yooyu noonu duñ ko wax artiste international fii lañ ko koy waxee kon fii ko def li mu doon yëpp yaa ngi dégg muy jàmbaar nekk suñu papa def ci réew mi lu yombul moroomam def ko fi mais ñoom ñëpp laay lancé kàddu yooyu noonu buñ toogatee si télé bi di wax nañ bàyyi xel ne bëri na si ñoo xamante ne nii lu Youssou Ndour génnee tey balaa suba ñu jëndi ko. bëri na si ñoo xamante ni dépasse bi ñuy añee seen kër laa la wax tey lañ koy jaayante ji Sénégal du kër yëpp ngay dugg fekk ñu samp saaku ceeb du kër yëpp ngay dugg fekk fa 20 litres diwliñ. mais yow tamit soo waxee leen tànk tant que mbër sa ñu gis say mboroomu mbër seen association Gris Bordeaux ne ca bopp ba ñoom bi ñu génnee di wax est-ce que du ñoom bëri tamit daa mel ni seen bopp lañ waxal wala. waaw bi ñu génnee di wax seen bopp lañ waxal lamb lañ kaas pour mu tijji seen liggéey dafa yàgg ni mu tëjee ni mu lii ni mu la. est-ce que loolu tamit la artiste yi def. waaw loolu la artiste yi def moo tax ma ne est-ce que loolu lañ est-ce que ñun noonu la ñu war a comporter woo. mooy li la boo génnee da ngay kaas sa liggéey nii ak boo kaasee ba pare da ngay jël benn deux minutes boo xam ne da nga koy lancer boo xamante ne état bi day bàyyi xel que yërmande war a wàcc si bi ginnaaw suñu borom ci bi la war a jóge ñoom la fi suñu borom teg faaw ñu dawal doomu aadama yi yërmande bu baax a baax a baax parce que métti na ci réew mi metti na ci réew mi bu ñu taxawee ne dañ bëgg dindi chômage si dëkk bi bu ñu taxawee ne dañoo bëgg sàcc ak agressé wàññeeku si dëkk bi ba pare dëkk bi di tegoo lii lii lii lii dafa métti. mobile daal suy wax tey waxul en tant que mbër wala waa làmb mais moom day waxal sénégalais yëpp kay jaay gerte gaak caaf la ku nekk ku nekk ci la nga yëngutu daal. waaw damay wax en tant que mais mbër gi ma mën a bi ma doon man bu ma doxee ñu nekkee mobile la wala Babacar woo ma pour def ak man interview sénégalais yi tax ñooy ñëw sa lamb. ay mbër yéegaluñ ma ci tribune bi ba fees ay xam ne du ñu mbër di ci leneen ñoo koy def bu may kaas nag damay kaas pour lamb ubbi ndax pour ma a liggéey ndax li ma sénégalais yi jàppee mais tamit dinaa lancer sénégalais xamante ne nii seen lamb yi yeggawul fenn ma lancer leen seen message waa kay. tey ubbeeg làmb ci dama ciy wax ak yow parce que làmb ji ba tey mu ngi ñu ngi xaar waa football baa ngay football waa handball ba ak ñëpp a ngay def seen ay compétition waaye dafa mel ni làmb ba tey moom mu ngi taxaw fa mu taxawoon. waaw mooy li ma wax rek xam nga wax naa ko barki démb ci benn télé bu ñu ma invité woon bi ma ko waxee damaa génn am ku ma woo téléphone ne ma am na dëgg yoo xamante ne boo koy wax journaliste yi télé yi duñ ko ñemee 100 pour cent parce que télé lañ yor day am lu ñuy sóoraale ma ne ko mais kon bu ñu invité ku mel ne man parce que man li ma gëm man li ma gëm loolu laay wax parce que loolu moo nekk ci man dañoo toog corona ñëw ci dëkk bi ñu gis chef de l'état yeeg ñëpp lancé message ne da ngeen raxas loxo ngeen éviter nuyoo bi. dëgg loolu dëgg ñu ne noonu la ñuy moytoo corona ñu ne ok ñu nekk ci mesures yooyu noonu ñu toog ñu ne corona bi day bañ rassemblement yàggul dara Macky Sall ñëw na fi Kaolack ku nekk gis na cortège yi njege njaay yeeg lépp mu nekk ci réseaux sociaux yi ñu ne ok mais corona ñëw Macky Sall anniversaire lu kii am xaw ma lan def nañ ko fi jam ñaajo ci lu yàggul dara Pape Diouf fa nekkoon di wéy ñu ne ok léegi ñun dañ bugg xam exact exact corona bi lan la maanaam xam nañ ne feebar la quoi mais Sénégal lan la fi parce que mënuñu comprendre liñ ñuy moytuloo suba ci lañ ñuy indi tey liñ ñuy bañ loo suba ci la ñuy accepté tey mais corona rassemblement lay bañ mais rassemblement barki dem la ko état bi def loon nit ñi barki dem bi couvre-feu amee ci dëkk bi booy di taal puno état bi demul gox bu nekk mu day yeb lu mat 20 mbër ana rassemblement bu fekkee corona rassemblement lay bañ lii dajaloo rond point Kër Massar boo ko booleeg lii dajaloo Sandaga chaque jour boo ko dugalee amitié du fees waa léegi kon lan mooy problème mu corona ñu ne corona nuyoo lay bañ ok ñu ne léegi dañuy ubbi làmb ji def ko huis clos ñu déglu bu baax li may wax feebar bi nuyoo lay bañ mais boo ubbee làmb def ko huis clos mbëri dañuy contact parce que bëre contact la dañuy daw ne rapide daje te feebar bi nuyoo lay bañ rek dafay joxe léegi ñaari yaram ñu ne taj ñu ne non non même bu fekkee mbër bi daa ñëw ba ñeneen làmb ji deux la day dem def test bu positifee du bëre. mais léegi mbër bu demee préparer combat amateur yi di ko waaj ba deux jours après lamb ñu dem test mbër bi daa positif loolu mooy satisfaire amateur yi championnat Sénégal bii di daw nii est mun nañ ñu waxal ci yàlla ne ñu chaque deux jours avant max dañuy test jours yi war a football yëpp ndax positif nañ ak dirigeant yeeg yëpp. kon fa pour yow. non damay laaj rek ndax est ce que am na ci léegi bu dee am na ci exemple laay wax quoi ñu ne ndax noonu lañu ñu war a tijjee làmb ñu ne làmb dañ koy def huis clos huis clos mooy lan pour bañ. seetaan si ndax mobilisation bi. léegi benn mobile bu doon bëre bu yóbboo dix car stade bàyyi na ko ñu am lu mat trente car yoo xam ne ay élèves ay étudiants yoo xam ne duñu am bie ñooñ lan mooy seen làmb ci mobile mooy dañuy taxaw buntu kër mobile xaar mu ngemb génn ñu yuuxu dàpp ci oto bi daw ba tali ba ñu tourné dem seen kër seetaan léegi ñu def làmb ji huis clos léegi quinze car yi nga doon yóbbu stade yëpp xam ne ñoom mënatuñoo dem stade fan lañ jëm si buntu kër ga fekk si trente car fa doon nekk waaw ñu taxaw di la xaar te la ñuy bañ mais boo ko waxee dañuy wax lan kii mbër la mais buggul làmb ji ubbi ñii seen xel mu ngi ci leneen man maa ngi ak visa Amérique fukki at téeméeri junni bu ma daggee bee ku ne xam na ne ñàkkuma ko bu ma toogee senegal fii nii di muy xëy di métti ngay xëy di bëgg loo ndekkee mu lay te làmb moo ma ko jaral làmb rek lañ bëgg mais maanaam bu duñ ñëw di toog di wax suñu intérêt ba fàtte doomu aadama yi parce que faaw ñu libéré sénégalais ñu dem liggéey liggéeyi du mbëri rek ñoo toog liggéeyuñ dëkk bi ñoo liggéeyul sénégalais yi dañoo bëgg dem liggéey léegi imagine toi tey ña daan dem stade yëpp xam ne mënatuñoo dem ñu ñëw dajaloo waat sama buntu kër sama buntu kër kan moo koy wiikuloo. yomb hmm? de. bu ma génnee sama kër ngeen bu ba pare nit topp ci oto bi dañuy daw a a daw ba rond-point arène nationale. policiers yi dëpp leen. boo leen dëppee ñu defaat seen mobilisation di ñibbi mënuñoo def seen mobilisation ñibbi dañuy toog ci rond-point bi foofu dajaloo ñoom ñëpp di xaar seen bër bër bër pare ñu toppaat ci oto bi mais léegi kon la mooy problème bi il faut léegi man tey mbër bi ñu ne bu mbër bi ñëwee préparé ba deux jours koy testé bu positifee léegi man dama amoon combat huit kilos la préparé naa ko ba deux jours avec lam ma dem ñu de testé ma ma positif dañuy dem jëli mbër ya ma doon jàppale contact yëpp ak dirigeant yi waaw léegi bu ñu jëlee ñëpp man dëkk bu ma voyagé woon seeti fu sama sëriñ dañ faa war a dem jëli sëriñ ba ak waa këriñ ba bu dee ci bii si laa doon yéeg di voyage faaw ñu libéré sénégalais yi li ñuy politique ci suñu xel bi dafa bari dañuy proposé yoo xam ne maanaam ci biir yow nga topp sa bëgg-bëgg bañ a déglu attentivement nga topp sa bëgg-bëgg ne yii booy baax na nañ ubbi làmb ji gars yi li ñu wax nañ jël non doo sax tala xalaat xam ndax liñ lay proposé lu positif la nekk la léegi dañ lay proposé lii bañ dem ba ci biir ñu ne non demaat nañ ba xalaat ne buñ demee ba ci biir ñu testé nga war a dem topp ñi ko doon jàppale entraînement war a dem topp fi mu doon dem ci ay sëriñam ba tey faa ñu wutaat beneen solution lii ak lii non discours bi mbëri di tenir lu loolu discours bi mooy amul dëgg bu ñuy raay ubbi leen làmb ji nit ñi dem bëri ji loolu rek nga gis. mooy wax ji parce que ñoom ñoo tëjoon biis yi ñoo defoon lépp mais tey biis bu nekk nombre ngay jël ñëpp a ngi liggéey ku nekk xam na ne Sandaga biir ville la nekk soriwul Palais gis nañ na muy mel gis nañ ni marché Asalem di mel gis nañ ni rond-point Kër Massar di mel te feebar bi mbooloo rek lay bañ. kon daal yow daal fi mu nekk nii yow loolu moom mooy sa maanaam dajaloo boobu ci marché yi ak fu ne. waaw mais loolu lañ mën a wax quoi parce que buñ ñu taxee xamal nañu ne biis dootul jël léeg léeg léeg lii parce que feebar bi day bañ rassemblement bi biis yi di jël nombre ba tey dafa feebar bi mënul deñ ñu jékki-jékki fii si di jëlaat nombre teg ci di si chargé ok ñu koy teg suñu bët ñu ubbi championnat Sénégal ñu si teg suñu bët Marseille ñi ngi jaay léegi demoon nañ ba benn instant lan la ñu proposé woon dimanche Marseille du tijji feebar bi dimanche lay dox. wàll ne moom xanaa xam ah, amul suru repos laa foog wala. ah yaakaar pour man du am repos de. feebar bi dimanche lay dox ñu ne léegi marché yi du ubbi dimanche ñu dem ba ci biir ñu proposé ñu couvre-feu xëy na ñoom xam nañ liñ ci jublu ñoo ñu ëpp expérience loolu mais jàpp naa ne rassemblement bi ni muy demee bëccëg bi ci seddaay bii nii mënu koo demee vingt et une vingt et une moom boo waxul nit ñi tëdd leen sax ñu tëddi ndax seddaay lañ nekk dëgg loolu dëgg bu fekkee dix millions habitants ñooy dox bëccëg gi vingt et une jotee boo doxee ci dëkk bi doo gis lu mat un million kon lan mooy problème bi xaw ma nag luñ ci jublu quoi xëy na mu doon lu baax te yàlla na doon lu baax loolu la ñuy ñaan mais chaque jour nit ñi di bàyyi xel na ñun buñ ñëwee di wax waxuñu uniquement pour jaay kenn ñun dañoo intelligent wala dañoo ëpp xel ci réew mi wala ñun ñoo war a wax wala lii mais dañuy wax li nga xamante ne nii loolu lañ ci jàngat parce que tey Babacar bu subaa couvre-feu bi nii naa la jox 10 millions Babacar 10 millions bi moom ci la sukkandiku ba mënul bàyyi xel lan moo waral ñu war koo jox 10 millions ak lan moo tax ñu tànn ci heure bi ak lii ak lii ak lii te bi doxewul noonu man mun naa fi toog di wax lii intérêt làmb di wax lii intérêt mbër di wax lii intérêt lii mais bu ñu ubbi woon làmb ba pare ba pare sénégalais yëpp tënku sénégalais yëpp tëju ñu ne làmb ji wii kulo la pay-per-view lañ koy jaayee mais bu sénégalais yi liggéeyul kuy jënd pay-per-view bi. waaw balaa ngaa jënd pay-per-view daf fekk liggéey dara waa léegi yow man bu fekkee fa liggéey dañ kaa tëj benn ñaar fukki junni laa yor maa ngi ciy korkoral di xool na laay dépassé fee fu ne benn combat mooy daw pay-per-view naa ko jënd ku koy jënd kon bu ñuy wax nañ waxal ñëpp parce que làmb moom li koy neexal mooy làmb ji di dox Sénégal di dox ñu teg ba 17h ñu ne waa asalem tëj nañ fi ne nii boo demee bikit yëpp tëj nañ magasin yi tëj nañ loolu mooy amuru làmb làmb dafa am sarmu boppam làmb yëfu ëffal la dañuy boole Babacar ak diw ñiyee boole ñi nga faral Babacar ñi faral fii làmb yëfu loolu la gis nga bu ñu si demee ba ci créer ay yeneen rek nañ ko tuddee leneen ba jamono neex ñu delloo si waat ko ci làmb kon yow da ngaa ne làmb du am ren hmm? ah bokkuma ci ñu gëm ne dina am de bu fekkee dëgg rek moo neex yàlla bu fekkee proposition yi ñu leen wax nii dem leen ngeen xool nuñ def ñu wii kulo ko nii mënul am dëgg moo neex yàlla léegi wii kulo Babacar exemple dama tëgg làmb def ci 40 million état bi moo ma proposé ne dañuy dem wii man làmb ji 40 million yi ma ci fay mooy li ñaari mbëri lekk ku ne 20 millions waxuma samay frais de organisation waxuma samay sport transport yi koy yóbbu ci télé yeeg lii gis nga promoteurs yi promoteur nga làmb faaw ñu bokk di xeex benn intérêt ndax ñoo bokk li ñuy jëriñ man munuma d'accord mbëri di woote ndaje di xeex pour làmbu dara te doo fa gis ménageurs yi te ménageurs yi mbëri yee tax ñu exiger ménageur amul lu mu seex ak promoteur mbër la seexal dëgg loolu dëgg làmb benn xeex bi la faaw ñu bokk di ko ci wax dëgg gi ñu war a wax bu fekkee Matar Ba suñu xarit la nii ak nii te ñun ñim nekk suñu xarit nga xam ne ñun ci kanamu mbëri yi nga xam ne ñooy mbëri yi nga xam ne seen làmb am na loo xam ne mënuñu ko adressé Matar Ba direct parce que am na luñ séq hors làmb dëgg du demee nu mu war a demee. maanaam Brian nga fa gis. moo fa am léegi tey làmb huis clos benn promoteur bu tëgg làmbam def ci cinquante millions ay exportant di dem ci télé transport yooyu sax bul ko calculer frais de organisation am léegi état bi da ko proposé huis clos mais état bi neen da koy jàppale ni mu koy jàppalee mooy exemple dina ko jox benn quarante millions dix million fan la ko waroon jotee ci billet ay transport am yi mu doon yóbbuwoon publicité mi ci bi yëpp fa la ko doon calculer ji ci billet nañ dem waxante lu mun a nekk. tey boo defee ci sa làmb 50 millions doon séntu arène nationale mun naa fi jaay benn 20 millions kon làmb ji bu paree man war naa mën a jot benn 70 millions comme 50 millions bi figurant la ci a mën a jox la promoteur bi xam la ci am ci bis bi ñëw organiser làmb ji jàll nii ak nii ñu ne état moo sauvé làmb mais naa la jàppale nit ñi duñ ñëw boo defee 50 millions naa la jox 30 millions sa 20 millions noo koy débrouiller ñu ne dañ lay wutal sponsor bu fi kenn nax kenn sponsor yi duñ sponsor làmb ju amul kenn. Hmm. yow lii nga gis. moo ci ne lamb ji boo gisee sport yi nekk Sénégal yëpp ay championnat Sénégal yëpp làmb doon leen ëpp sponsor nga sombe nga taxaw naan orange doon na ma jox ay 500 millions ak lii ak lii ak lii day dara. du dara lu dul làmb yoroon coow li moo yor mbooloo mi Gaston di tëgg Balla Gaye ki Modou Lo ki ay kalaaf stade di fees dell championnat Sénégal boo fa demee doo fekk lu mat 20 personnes est-ce 500 millions daana jox orange 100 millions daana jox championnat Sénégal benn 200 millions dañuy waxante dëgg bu ñu nekk fii di ñu théorie ci yoo xamante ni suñu xel yi la ñuy dox li am solo ba am solo ba am solo mooy nañu libérer sénégalais yi ñu dem ñu liggéeyi parce que chômage bi ñu créé nii métti na doy na waar ba pare ci biir couvre-feu bi nga xam ne yaa tëddiloo ñëpp man ma amoon sama magasin fii teg fi sama gardien magasin bi doxatul ma arrêté loo gardien bi diran ñuy xool lu dëkk bi di décider ñu dajji sama magasin danga ko fiy gis sama buntu kër fii la samay moto doon fanaan nga ñëw fay ñu dajji sa moto yóbbul la ko. couvre-feu li mu jur ci ay pour yow daa moo moo ëpp li mu faj. dafa bari li mu jur ci ay jafe-jafe dafa bari message boobu ñu lancé noonu état bi moom lañu lancé jeunesse bi xamal leen ne Macky moo décidé moo wàccee décret pour couvre-feu am dëkk Mermoz ma dëkk Grand Yoff fii mooy suñu kër couvre-feu am ma daw génn ci kaw tali bi jël fi lu ma diis pour na taal ko policiers bu ñu ñëwee ma daw ñu xëpp ci ndox mu fay romb nañ dem parce que fay na dañ koy puus mu tali bi léegi ngelaw bi di ëpp saxaar bi sama yaay ëppal na soixante-dix ans wala sama mag mi doom bu am cinq mois mu war a nooyu loolu noonu te pourtant ki mi ngi këram tëdd wala mi ngi France tëdd du loolu mooy li koy faj li koy faj leen la mooy nañ toog xaar yàlla élection élection yàggatul ah. waaw man ku ma teg coono moom wax dëgg yàlla ma wàccoog yow rek yow mi kon daa mi da nga da da est ce que Macky na ne lii feebar buy waale la mu ne ñu loolu tamit da ko def pour sauver sénégalais yi rek. waaw moom laa ma ne. boo déggee sama débat wax dama ne xaw ma luñ ci jublu mais yàlla na doon li nga xam ne mooy li gën. Sénégalais yëpp quoi parce que ñun loolu mooy li ñuy jëriñ sénégalais yi nekk ci jàmm ñu ñu nekk ci jàmm li ci des amul problème mais ak lu mën a xew ba mun a xew laa ne bu fekkee feebar bi la ñuy daw rassemblement beeg yooyu noonu dama ne période sedd bii li nit ñi di dajaloo bëccëg gi mënuñu koo dajaloo guddi gi jarul laaj. loolu moom téere seddaay bii ñu nekk nii. mais bu 21 jotee même bu dul woon couvre fa génnal nga dox sa angal koñ ba xam fi nga doon fekk gars teg ataaya da leen fay fekk. célibataire yi sax fi a tëddi. ci dara. jeex na léegi nag kon ñoom li ñu ci jublu ñoom ñoo xam mais yàlla na doon li nga xam ne moo gën mais lu ci a xew a xew nañu bàyyi xel ne métti na ci sénégalais kontaan ci et puis balaa ma lay waxa looy tàggoo sax Equivox moom say dëkkandoo lañ ndax diggante bi moom defe naa sorentewul bi ñëwee si làmb ànd ak Vox Arena taxawal ay làmb yu neex a ay Mama Lamine Garga 2 Tyson 2 Franc ak yeneen Lamine ak ak sa rakk koo bokkal écrit muy Fourière ñoo ko jox Baye Mandione Senior taxawaayu Vox Arena noo ko gisee tey ci làmb ak ñëwam. waaw di ko rafetlu rek di ko rafetlu rek tey di wax ne tey lu mel ne ay Vox Arena ku nekk xam na ne liñ financé ci làmb ji ren bëri na maanaam même bu ñu waxul woon liñ jox mbëri mais bu ñu waxoon ñoom li ñu investir pour làmb gën a am visibilité wala làmb gën a taaru rek dafa bari mais tey ñu mel ne ñooñu bu ñu ñëwee di dooleel làmb di dooleel jeunesse di dooleel état bi ci jeunesse parce que dañuy wax maanaam kuy jaamu yàlla ci nit ñi rek yaa ngi wutu suñu borom ci doomu aadama yi tey ku mel ne Vox Arena yi dañoo ñëw di dooleel état bi ci jeunesse bi di jéem a wàññi semence bi ñëw jël seeni millions investir ko ci làmb ñu mel ne ñooñu loolu làmb daf leen war a encourager mais jël say millions financé ko ba pare ñu tëj réew mi di yoo xamante ne nii boo toogee da nga koy nangu parce que kilifa nga goo xamante ne nii doo toog ci télé yi di dàgga sant ci yenn détail mais da ngay xam ne yi ñu lay wax nii nii nii mooy loolu joxe say avance tey ku nekk xam ne ne Vox Arena làmb yi mu taxal nii bu promotion yi commencé woon dox doo dégg Sénégal làmb yu mag yi bu face à face yi commencé woon am diine de gala yi di am ñu organiser ko nañ ko war a organiser làmb yi aw fi mu war a aw ci combat yi ma gis ñoom ñu taxawal doo dégg làmb yu mag yi ñuy coow mais fan lañ koy defee dañuy obligé jël seen xaalis bàyyi ko mu ci terrain bi xam nga fan lay mujjee buñ bàyyee làmb ji promoteur mbër yi dañuy commencé di woowaat waa ji yaa a jàpp àll benn 500000 parce que li nga ma jox moo ciy gën a deewaat ba kenn du la wallu. ñu taxaw ñu ne jox nañ promoteur yi 27 millions pour ñu séddale ko Vox Arena li nga jël 27 millions nga jox leen ko pour ñoom promoteur yëpp ñu séddoo ko mais wàllu simple bokkuñ si promoteur yi ñu ah jox nañ leen dañ leen see génne 27 millions nga jox ko waa Vox Arena ñu nga jox ko waa làmb ñu ne na promoteur yi séddoo nañ dem laaj Vox Arena avance yi nga joxe yëpp boo ko totalee ñaata la 27 millions yi moom du ko mat moom seul léegi làmb lan lañ ko jàppee ci réew mi ba artistes yi génn kii ñu jox leen lu ëpp milliard waa làmb génn ñu ne 47 millions loo xam ne matul avance su benn mbër. mobile kontaan naa ci yow. ñu ngi lay ñu ngi dellu Ousmane Seye. père mi ngi fi mu ngi fi mi ngi si jàmm bu baax mi ngi fi mi ngi si jàmm. koy mobile bu Grand Yoff mbooloo ah ñu koy nuyu di ko ziar defe naa message bi am na solo et puis lii lépp li ko waral rek mooy xëy na moom waxalul sax boppam mais askanu Sénégal la waxal parce que wax na fi kii jaay caaf kii jaay fonde te ku ci ku ci ne xam nañ ne ak ak couvre-feu bi xulle sa liggéey moom doxatul na mu daan doxee mais nag kon autorités yi nañu gën a bàyyi xel sénégalais yi rek defe naa loolu daf ciy am solo trop trop trop waa làmb tamit ñu wax leen li fi ko barke yonent bi sallallahu alayhi